di kontaan ci moom di kontaan ci Ndeye Diagne xarit la ci Fatou Guéwal ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu di leen bàyyi xel waaye nag eh, ni mu ko waxee rek eh, di sargal bu baax a baax njiital Moustarchidine wala Moustarchidaat eh, di Serigne Moustapha si bu Serigne Cheikh ñu ngi koy nuyu di ko ziar di sàkku ci moom ñaan waaye nag sama xel dem ci sama maara sëñ Abib si bu Serigne Mansour ma ñaanal ko yàlla gudd fan gu ànd ak wér yàlla defal ko xéwal def ci poos yi dara ndax nag lu mu yor lu ne da koy joxe rawatina ñi nga xamante ni ñooy taalibe fanam wéral cëram bàyyi kook baayam bi nag ñu sokkorloo ni asamaan ak suuf nuyu soxnaam ah, ki nga xamante ni rek ah, mooy soxna awakan moom tamit maa ngi koy nuyu bu baax a baax di ko bàyyi xel di bàyyi xel képp koo xamante ni dangaa bokk ci njaboot gi nekk Tiwaawan bu ma fa jógee nag damay daal di nuyu waa Yoof sargal leen ziar leen ku ci mel ni Mamadou Lamine Laye ma koy nuyu di ko ziar di ziar itam ki nga xamante ni mooy maam Diène Laye ñoom ñëpp ñuy sàkku ñaan ci ñoom sàkku ñaan itam ci njaboot gi nga xamante ni ña nga diwaanu Touba ku ci mel ni sama sëriñ de di sëñ laat bu sëñ Abdou Khader ma koy nuyu di ko ziar di sàkku ci moom ñaan nuyu soxnaam soxna ña nga di ko bàyyi xel bàyyi xel itam ñi nga xamante ni ña nga Medina Baye fu ci waay mën a nekk rek waa Ndiassane ñu ngi leen di bàyyi xel di sàkku ci ñoom ñaan di leen ñaanal yàlla jàmm dina dafa am solo ndax nag gis ngeen ko julli gi li coow li bari bari ñetti jullee am ak ñeenti julleeg lu mu ci doon rek Euh, fa ñuy mujjee rek mooy waxtaan ba déggoo te it nag euh, diine ji dafa nekk loo xamante ni wax dëgg yàlla lu ci nekk rafet na déggoo nañu ba nekk benn wàllu tarixe yi nga xamante ni nii lañ daan julleeg kii lay xaar ak yi yooyu yëpp dafa nekk loo xamante ni jóg na fi kon bu ñu toogee ba jamono bii réeroo am nañu toog waxtaan rek te xam ni lépp ñoo ko bokk ñoo bokk suñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bokk itam li nga xamante ni mooy yàlla buur bi nga xamante ni ñun ñëpp moom la ñuy jaamu kon dafay jaadu rek ñu ñaan yàlla na yàlla def jàmm xol yi te lii nga xamante ni mooy li am di wàllu julli gi ñett yeeg ñeent yi yàlla na ko fi yàlla jëlee yàlla def ñun ñëpp ñu nekk benn comme ni ñu ko nekkee woon mu doon loo xamante ni nag dafay sax dàkk yàlla defal ñu ko itam ci sunuy biir kër yàlla def jàmm ci biir kër yi ñaan déggoo ñaan baalonte ak ñaan itam mu doon loo xamante ni lu dëggu ci ñun lay doon ndax léeg nit ñi julli ba pare delloowaat buum ca boy boy ga te it nag kër yi metti na jeeg ju ndaw ji sëy metti na ci ñoom ndax ku sañoon ku ne boo jógee ci sa këri wayjur am yeneen i wayjur yu bees am koo xamante ni sa borom kër la ngay sëy ak moom ci fartas yàlla ak sunnas Muhammad te nag wax naa leen ne sëy dafa doon loo xamante ni lu doy waar la ndax boo xoolee diggante góor ak jigéen muy jigéen ji nga xamante ni mi ngi ci kër yi wayjuram bu nekkee ak ay wayjuram nekk ak ay frère am bu amee juróomi at rek wala balaa muy am juróomi at séparé nañ leen amatuñu droit euh, bokk nekk ki nga xamante ni mooy ko góor itam naka noonu nekk ak ay jigéenam bu bala moo am juróomi at séparé nañu leen nekk dootuñu am droit bokk nekk kenn ku ci nekk euh, di fekk sa morom ndax doom bu jigéen du bokk ak doom bu góor nekk ñu dem ba jëmmi jamono yàlla indi ñaari doom yoo xamante ni góor ak jigéen mu ne daganal naa seen diggante yéen ñaar fanaan loolu doon loo xamante ni lu sacré la te kenn ku ci nekk war nga cee mën a bàyyi xel nga ñëw ci kër nag sëy si ci kër fekk fa sa borom kër fekk fa say mbokki borom kër soo sañoon kenn du ci dégg dara lu ñaaw soo sañoon kenn du nekk loo xamante ni sax dañ naan nañ ko waxtaanee ci biir kër gi waaye nag léeg mu metti lool ci ñoom dañuy nekk ay xale dañuy jaaxle duñu xam fu ñu aw te it nag euh, dañuy naan leen di dañ leen di faral di wax ne jigéen ci wàllu boppam moomul lu ko naqari ci ci sëyam mu dem wax ji ko ay mbokkam lan ngay def wanaasu ko ci sa biir dënn mu nekk sa biir xol te olof Ndiaye souvent dafay faral di wax ne xol bu feesee tuuru nga dem ba jëmmi jamono nag nga éclaté mu doon ñol-ñol boo xamante ne dootul effacé wu mu doon lu metti ci yow boroom kër ba dem bàyyi la ginnaaw wala mu dem ànd ji ak ay mbokkam nga weet di dund jafe-jafe yàlla na ko yàlla teggil bépp jeeg bu ndaw boo xamante ni yaa sa kër di sëy ñi nga xamante ni itam ñooy goro yi nekk ci biir kër yi naam léeg ñu waxtaan ak ñoom ci ñenn ñi nga xamante ni dañuy safaanoo sëy sa wàll ba pare bëgg sëy sa wàllu doom maa fi wàccoon ci kër gi maa jur sama doom ci fardas yàlla ak sunu su Muhammad maa sonnoon ci moom kon lépp loo xamante ni mu ngi koy dund ak jabaram du ma ump teyit lu jabaram soxla ci sama loxo lay jaar léeg mu am lu mel noonu waaye léeg nga fekk goro boo xamante ni la muy bëgg mooy euh, jabari doomam am jàmm la muy bëgg mooy doomam am jàmm la muy bëgg mooy kër gi am ambiance bu neex wala sax mu def ci bi ci gën a neex mooy jëla sa jabar yóbbu ndax dëkk danda ca dàq bu julli jotee mu yàkkal ma indi bu événement bu neex jotee mu yekk indi jëndal ma ay piis ak yooyu ndax loolu soriyaatoo bi moo koy waral léeg goro def lu mel noonu tey nag jàmm kese lay jur léeg itam goro nekk ci biir kër gi mel ni mu xar sama wàll wey na sama yoon ci njël sama yoon ci dépense sama yoon ci dara yor leen seen njër gérer leen seen bopp lu ngeen togg ma yàq bu euh, lu ngeen togg yàq ma ne neex na su neexee ma ne neex na su naqaree ma ne neex na ndax lan bëgg naa jàmm ci sama biir kër léeg am goro yi dund lu mel noonu waaye nag léeg itam nga indi jabari doom ji ñëw ci biir kër gi la ko yitteel du dara lu dul koññati sa doom ci say loxo ci say loxo lépp loo xamante ni sa doom nga koy defar mu teg ko bët wala lépp loo xamante ni sa doom gàddu na ko ci kër gi mu ne ko dafa diis li nga yenu metti na te sa benn moroom yenuwu ko ñeneen ñaa ci biir kër gi nañu def yooyu dafa nekk yoo xamante ni goro yi dañ koy jànkonteel bis yu mel nii nag nañu àndandoo toog waxtaan rek fexe ba jàmm am ci sunu kër fexe ba itam doon loo xamante ni dañuy jéggaloonte mu doon lu sincère ndax nag dañuy faral di wax ne bu gën a reewee mag ñàkk fay te olof njaay ne na ku miin sa xuloo yëpp la am na noo xamante ni boo ni doxalee ci biir kër gi goro bi ci kër gi du la mën a wekk benn yoon ndax miin na sa xuloo ba noppi te it amatul dara lum ci ragal te nag xale yu góor yi dañoo mën a nopp tubaarkàlla macha allah dañuy am seen jabar nopp ko te it nag yow mi nga xamante ni yaay seen yaay tànk yaa ngi dëkk di wax ci ñoom nobel googu ak cofeel googu day daal di gën a wéy ci seen diggante ak seen jabar nga nekk koo xamante ni nag wax dëgg yàlla danga naan sama doom nangu ñu waxtaan événement yu mel ci kër gi ndax jàmm rek moo sakkan bu ñu nekkul ci jàmm kenn ku ci nekk fatu sa nekk bu ñu nekkul ci jàmm ku sa daw doom daw génn ci biti nga yaa ngi seet ba xam ndax ña ngi koy dóor wala ndax ña ngi koy gaañ ndax ñàkk jàmm moo ko waral te bu jàmm amee banc yi dañuy wasaaroo ci ëtt yi basan yi ñu lal leen waxtaan wi ataaya ji mel ni bu ma la ko waxati kon gëm naa ni boo jëlee jàmm ak ñàkk jàmm comparé ko di nga xam ni jàmm rek sakkante kenn ku ci nekk war nga caa dox mbokk fii laa leen di tàggoo jaajëfal leen bu baax a baax déwénati leen déwénati nag képp koo xamante ne rek yaa ngi toggoon di seetaan waaye rawatina mbokk yi nga xamante ni àndoon nañu ak ñoom ci suñu tournée ci biir koor gi mu doon loo xamante ni nag wax dëgg yàlla jaajëfal gi am na fu mu commencé waaye amul benn yoon fu muy yem jox leen rendez nag incha allah suba ñu dellu si waat àndaat yéen comme ni ñu ko doon defee euh, waxtaan rek bëggalante euh, tegante ay clip tegal leen ay kili ngeen seetaan ko su ko defee ngeen mën a semaine prochaine ñu dellu si ci beneen tomb waxtaan boo xamante ni dafay ñelaat biir kër gi kon jàmm ak jàmm incha allah ba suba ñu dellu si waat ci kàttanu yàlla asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu fi amaanillah